auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani barke Seexul Xadim fas yéene liggéeyal maam borom Touba mu néew mu bëri yal nañ ci làq ngërëmal Seexul Xadim hamdi wa sukri man kulli bi saara lohoori dan doona suxtil inda sar hamdi wa sukri liman kulli bi sara loori dando na suxtil inda sarsara lahu sanaa'i wa ridwaanu bila siqatin musxaadali min bani daymaana ansara lillahi kulli ladda habaru makrumatan min atarna wa fi ajama man sara lillasina ila sarsara xat xasado ziyaratin faraxu darayni aw sara lillasina ila sarsara xat xasado ziyaratin faraxu darayni aw sara